bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna binuuril fahmi waftax calayna bimaxrifatil cilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika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 jàngkati alquran yi di nuyu itam jàngalekati alquran yi di nuyu soppe yi ak am di jàmm yi fépp fuñ mën a nekk ñoo ngi békki ni nga xam ne noonu la ñuy ànd ak ñun jotaay bi ñaan suñ borom mu boole ñu nangul amaan bi ci dellu si waat ak mbokk yi itam suñu waxtaan yi nga xam ne léeg ñu ñëw ci ci fajar yi dimanche yi daan ci indi lu jëm ci wàllu ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju yàlla ñu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole defal njéggalu bàkkaar xam naa dañuy ñëw waxtaane baat boo xam ne oyof na lool ci làmmiñ muy baatu alhamdulillah solo si nga xam ne moom la am ak wàccuwaay bi waaye lim làmboo ci ay ngëneel ak nim ndekke mbir moo xam ne lislaam da ko yoonal lool te fonk ko fàttali yiwu rëy woowu ci e, ci kàddu gu màgg googu nga xam ne mooy kàddug alhamdulillah jullit bi da cee war di xel saa su nekk moo tax suñ borom subhanahu wa taala ma ngay wax ci alquran ci suratu namli qul alhamdulillah wasalaamun ala ibadihi alladina stafa allahu xayrun amma yushrikun nee na kuy wax ne na sant yàlla moom mi nga xam ne mooy def jàmm ci jaamam ñi nga xam ne moo leen tànn mu yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam kooku mooy yàlla sori na lool ñi nga xam ne ñoom lañ koy bokkaaleel waxul alhamdulillah sa yurikum ayatihi fa taarifunaha wa ma rabbuka bi xaafilin amma taamaluun santal borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne du dañ mukk di wane màndarga yi wane ne mooy yàlla ndax fàgganut ci jëf yi nga xam ne moom la jaam di jëf mbokk yi baatu alhamdulillah nañ bari luñ koy wax nañ bari luñ koy wax te mooy baatu sant yàlla sant yàlla damay gis benn footballeur boo xam ne dañoo wax ne dañ koo tuumaaloon àgg ci jigéen ci lu dul coobareem ñu di ko wax viol nee nañ sax du lenn tuuma waaye tuuma yu bari la waaye ñu tëj ko ab diir àttekat ya ko gis ne loola dara amu ca bi may seetaan ak génnam bi mu jàkkaarloog journaliste bi journaliste bi laaj ko li mu wax rek mooy alhamdulilah waaye waxaatul dara topp na ko daal làkk tubaab bi baree baree bari di waaxu ànd ak moom waaye moom ba mu ko waxee alhamdulillah la ca noppi muy baat boo xam ne lim li li mu ëmb bari na lool waaye alhamdulillah ci jamono ji nga xamante ne dangaa nekk ci xat-xat alhamdulillah ci jamono ji nga xam ne da ngaa nekk ci piix ndax léeg nit ki dana ne ci jamono joo xam ne day jàppe ne lim nekk ay xat-xat la te moo gën ci moom te moo gën ci moom kon alhamdulillah ala kulli xaal léeg-léeg ñu waxe ko noonu mooy maa ngi sant yàlla ak lu man di xew ki nga xam ne daa bari lu alhamdulillah day mujj bokku ci ñi nga xam ne ñooy santkat yi mm, waaye eh, góorgóorlu ba bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñooy weddikat yi ndax xaame yi ñoo am ak jaaxe diin yi te boo bokkul ci ñi nga xam ne ñooy xaame diin yi da ngay ci ñi nga xam ne ñooy jaaxe diin yi te mooy ñi nga xam ne ay xarabkat lañ duñ sant borom bi subhaanahu wa taala kon bokkal ci ñi nga xam ne yaamaduuna allaha azza wa jalla fi sarai wa darai fi yusrihim wa fi usrihim fi laylihim wa nahaarihim bokkal ci ñi nga xam ne dañuy sant seen borom subxanahu wa ta'ala ci jamonoy péex waaye dañuy sant seen borom subxanahu wa ta'ala ci jamonoy xat-xat dañ koy sant ci bu jamono yombee dañ koy sant ci bu jamono jafee ci ñoom dañ koy sant guddi dañ koy sant ba bëccëg nga xam ne boo jëlee programme mu sant yàlla bi def ko muy sa programme njàmbat dalay daal di sori te da ngay noppalu ndax xaal bi nga nekk dalay neex. waaw euh, ki bu kontaanut ci boppam nim nekkee neexu ko du noppalu du noppalu waaye bu fekkee kontaan nga ca bopp ni nga nekkee neex na la dangay sant sa borom mi la ko def da ngay sant sa borom ni ko def moo tax nga gis ku ñu xase mbir te liñ koy xase moom nekkut ci moom maanaam moom defu ko laa bëgg wax dañ koo def ci moom maanaam xas nit ne ko da ngaa gàtt moom bind la moom gàttaayam bi ak yembare taxu koo gàtt kii njoolaayam bi farlu taxu koo njool kii bëtam yi ni mel farlu taxul mu mel ni yaafus taxul mu mel ni maanaam nit ki daal ay jikkoom bu fekkente ne sàggan na ba mu yàqu na góorgóorlu ba ay jikkoom baax ndax loola bu coobare woo te góorgóorlu bu dajeeg ndimbalul borom bi subxanahu wa taala kenn du ko gën waaye bu xoolaatee li ko wër xaw ma ku muy sikk waaye du doon boromam te ku jàmbat àdduna yi ci nekk. bu njàmbat li baree mu mel ne da ngay sikk sa borom te loolu suul jëf la ndax danga koo tal moo tax ngay jàmbat dang cee jot moo tax ngay xeeb waaw danga cee jot moo tax ngay xeeb am na koo xam ne boo génnee rek gis ko moom daa bëgg a mel ne yow ah xam nga bu fekkee yow lu mu gàtt gàtt am na ñoo xam ne bu ñu sañoon mel ne yow place bi nga toog bu ñu sañoon toog fi ni nga mel buñ ñu sañoon mel ni li nga am bu ñu sañoon am ko nga fàtte ki la ko jox te moom joxu leen ko ba nga di ko xarab bu borom bi boolee ci jalgatikat yi boole la ci goreedikat yi yaa ko yóbbee sa bopp yaa ko sa bopp moo tax toujours olof di wax ne xoolal ca ñooña boo leen di xool doo doo xeeb li nga am nga xam ne boo génnoon sax gis koo xamante ne dafa ne ci nattu wala dafa ne ci am ndok wala dara ba tax nga yërëm ko bëggoo mel ne moom ndax xaal bi mu nekk ñun la santal yàlla mi nga xam ne moola jàmmal musal la ci li nga xam ne nattoo na ko ñeneen ñu dut yow seetal loolu nga xam ne delloo ko ci sa njàmbaar waaye danga ko delloo ci borom bi nga xam ne moo la musal ci loo xam ne nattoo na ko ñeneen ñu dut yow waaw bu ko defee nga daal di kañ borom bi subhaanahu wa taala waaye sant ko alhamdulillah baat la boo xam ne baatu kañ la ak tagg woo xam ne jaam bi koy tagg borom bi subhaanahu wa taala moo tax suñ borom moom daa bokk ci lim bëgg mooy ku ko kañ ak ku ko bàkk ak ku ko tagg loolu kenn gënu ko ko bëgg te moom ci boppam sax moo ko yelloo nag moo tax moom ci boppam mu kañ boppam mu kañ boppam waaw bàkk boppam yonentam yi alayhimu salaatu salaam kañ ko borom bi subxanahu wa kañ leen kañ malaaka yi ñoom it duñ dañ ci di ko kañ ak di ko bàkk subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar rek baat yi nga xamante ne yëpp day dellu ci borom bi subxanahu wa moo ko moom. moo moom ñun nit day toll foo xam ne daa bokk ci feebar yi mooy day bëgg aw tagg day bëgg aw tagg am na ñoo xam ne aw tagg luñ ci am doyut luñ ci am rek doyut fu ñu leen di taggee tax lañ sawar feebar la boo xam ne lim lay jural léeg-léeg mooy gis sa bopp feebar la boo xam ne lim lay jural mooy naw sa bopp ak naw say jëf feebar la boo xam ne lim lay jural mooy xeeb ñi nga jàkkaarlool su fekkee am nay njariñ mooy bu bariwut mën naa tax nga bari loo xam ne danga ko moytandiku waaw nga bari loo xam ne danga ko danga ko moytandiku ndax dangay xam ne du sa place ñu lay fàttali fi nga bokk mën naa tax nga yëg ne yow jomb na la nga war a def yenn yi wala jomb na la nga di ko wax waaw jomb na di ko wax waaye tagguwudu dëgg yi xew ci penc mi moom nga xamante ne eh, xeetu xeetu dóorante la ak tàpp rek loolu moom njëriñam bëriwut njëriñam bëriwut moo tax suñu borom subxanahu wa taala di kañ jaamam ñi waaye di kañ boppam di kañ boppam subxanahu wa taala ak jaam ñi nga xam ne ñoom la gërëm moo tax moom subxanahu wa taala ni ma ko waxee léegi ci kañ gi muy kañ boppam ci sant ko. ma ngay wax naan daraballahu mathalan abdan mamlukan laa yaqdiru ala cheyin wa man rasaxnaahu minna risqan xasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawuuna waaye lam ca teg mooy alhamdulillah bal aktharuhum laa yaalamuun waaw yàlla mi ngi ñuy misaal mi ngi ñuy misaal ndax bëgg ñu ndax bëgg ñu mi ngi ñuy ndax bëgg xam ndax bëgg xam misaal yoo xam ne ci alquran bari na lool nu suñ borom di eh, misaale waaye fu jaam bi demee ba lot delloo ko delloo ko mbir ma mu sadd masala ya ba mu leer jàngale ca lam ci jàngale indiwaat ak cant goo xam ne cant gu tegu la noonu lay kañe boppam ci ubbee ay saar ci alquran saar yoo xam ne da koo ubbee sant yàlla saar yoo xam ne da ko ubbee sant yàlla muy alhamdulillah boo demee ci alquranul karim nga jël surat al di saar bi nga xam ne moo gën a màgg ci alquran borom bi subhaanahu wa taala bismillahi rahmaani rahim alhamdu lillahi rabbil alamin waaw sant yàlla mi nga xam ne mooy eh, borom mbindeef yi loolu ci kàddu yi njëkk ci alxuraan la bokk ci boo dee jàng ci kañ ko bàkk ko sant ko nga xam ne boo ci taxawoon rek mu doy sëkk ab bind noonu la ubbee it euh, subhaanahu ay saar ci alquranul karim yeneen yu dut moom boo demee ci suratul an'am alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda wa jaala alzulumaati wannuura summa alladina kafaru bi rabbihim yaadiluun noonu la borom bi ubbee saar wa sant yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf moo bind asamaan ak suuf xoolal tey bu fi asamaan nekkul woon xoolal bu fi suuf si nekkul woon asamaan ak suuf ci li fi nekk ci am njàngale li fi nekk ci ay settantal li fi nekk ci taxaw seetlu yoo xam ne buñ ko doon def gàcce ngaa laa maa ki ko def muy borom bi subxanahu wa taala moom mi nga xam ne moo def lëndëm ak leer moo def lëndëm ak leer waaye ci suratu kahfi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba walam yaj'al lahu iwaja sant yàlla mi nga xam ne moo wàccee ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam bi alkitab muy alquran te alquran amul benn dëng-dëng bu ci nekk amul benn dëng-dëng bu ci nekk waaye lu leer la xoolal sant yàlla mi bind asamaan wala sant yàlla mi nga xam ne mooy borom bindee fi sant yàlla bind asamaan ak suuf def lëndëm ak leer sant mi nga xam ne moo wàccee alquran ci jaamam bi waaye sant borom bi subhaanahu wa taala ci suratu saba mi nga xam ne lahu maa fi samawati wa maa fi ard mooy ki moom li ci asamaan yépp ak ci suuf yi lépp mooy ki nga xam ne wa lahu alhamdu fi l axira wa huwa alxakimul xabir moom moom cant euh, ëllëg yowmal xiyaam mooy aji xereñ ji mooy aji dañ kumpa ci sant suñ borom subhaanahu wa taala ba léegi ci weneen saar di sóoratu faasiri mu tëj saar yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala da koo tàmbalee alhamdulillah nga xam ne sóoratul sóoratul fatiha la sóoratul an'am sóoratu kahfi sóoratu saba ak sóoratu faatiri muy juróomi saar yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mi ko tàmbalee ci alhamdulillah lu tax mooy moom moo yeyoo cant moo yeyoo taggu rafet wi ca jëmmam ca moomeelam gi moom kawnu bi subhaanahu wa taala moo tax fa lillahi alhamdu rabbu samawati wa rabbul ardi rabbil alamin noonu la ko waxee ca suratul jaasiya mooy moom mooy ki nga xam ne moo moom ak cant moo moom ak cant moom borom bi subhaanahu wa taala moo ak cant cant goo xamante ne day bàyyikoo ci asamaan waaye moom moom cant gi nga xamante ne li muy wone mooy borom suuf si waaye mooy borom mbindeef yépp cant googu nga xam ne ci lu teew ak lu weesu ak liñ dëgmal lépp suñ borom subxanahu wa taala moo ko moom li teew li weesu ak liñ dëgmal lépp suñ borom subxanahu wa taala moo moom cant gi lahul hamdu fil ula wal axira waaw lahul fi fil ula wal axira mooy ki nga xam ne moo moom cant ga ca asamaan moo moom cant ñi ci suuf ñëpp moom lañ war a sant wa lahul hamdu fi samawati wal ard mooy ki nga xam ne almahmudu abadal abidin fil jannati rabbil alamin mooy ña nga xam ne ña ngi koy sant cantkat ya ca aljanna cant goo xam ne cant gu sax la fiha subhaanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daxwaahum an alhamdulillahi rabbil alamin nee na seenu ñaan ëllëg yowmal xiyaam ña dugg aljanna yal nañ ca bokk mooy di kañ borom bi subhaanahu wa taala naan ko gàcce ngaalaamaa yow gàcce ngaalaamaa yow seenum nuyoo mooy salaam waaye la ñuy jeexale seenu ñaan ak seeni wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin ku dugg aljanna sant yàlla yal nañ ci bokk alhamdulillah kalima la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf koo bëgg da koo neex wa yarda anha da koo gërëm dafa gërëm ki nga xam ne da koy wax moo tax sayidna aliyun radiallahu anhu daan wax ne alhamdulillah kalima ahabaha allahu li nafsihi kalima radiyaha allahu li nafsihi wa ahaba wala wa uhibba an tuqaal kàddu la goo xam ne suñ borom da koo bëgg da koo bëgg ci boppam dafa gërëm daf ko neex moom ci boppam waaye daa bëgg ku koy wax alhamdulillah kalima kullu shakir maanaam baat la boo xam ne yóbbaale na gépp cant gu nit ki bëgg a sant moo tax na nga ko bari koy wax na ko bari loo koy wax am na mag ñi ñu nett li ci réew mi ñoo xam ne loo leen mas a wax alhamdulilah la ñuy wax loo leen mas a wax moo xam xibaar bu neex la moo xam xibaar bu naqari la moom lu mu mën doon rek boo leen ko waxee rek lañ cay teg rek mooy alhamdulillah alhamdulillah daal sant suñu borom subhanahu wa taala ca saasa alhamdulillah digal la loo xam ne suñ borom da koo digaloon yonent yi da koo digaloon yonent yi yonent yàlla noox ca gaalam ga ba gaal ga muccee moom ña ko gëm ñu ànd ca gaal ga fa isa stawayta anta wa man maaka ala fulki fa qul alhamdulillah alladi najjaana min alqawmi alzalimin ba mu duggee ca gaal ga ànd ak ñi ko gëm ba gaal ga dawee ba taxaw lam wax moom ak ñi nga xamante ni ñoo ko gëm ànd ak moom ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu musal ci tooñkat yi waaw nga xam ne delloo yàlla njukkal la ci bi nit ki noppee ci li def borom bi subhaanahu wa taala noonu lay diglee cant digal ko yonent bi alha eh, sallallahu alayhi wa sallam wa qul alhamdulillah alladi lam yattaqis walada walam yakun lahu sharikun fi lmulki walam yakun lahu waliyun min adulli wa kabbirhu sant yàlla mi nga xam ne walaay sori na ko muy am doom amut kum bokkal gi amut kum bokkal nguuram gi mooy aji màgg ci am na fu mu koy wax ci aaya ma ubbee woon ci suratu namli wa qul alhamdulillah wasalaamun ala ibadihi alladina stafa allahu xayrun amma yushrikuun mbokk yi sant yàlla laay waxtaane ak soloom muy baatu alhamdulillah yiñ ciy joxoñ ñi yëpp ay joxoñ la yoo xam ne dalay delloo ci nga gën a bari looy wax alhamdulillah ndax mala malaayika yi nga xam ne ñoo yenu aras borom bi nee na ña ngi koy sàbbaal ñoom fuñ toll waaye ña ngi koy sant yu yusabbixuunahu wa yaxmaduunahu ña ngi koy sàbbaal fuñ toll subhaanallah waaye ñoo ngi koy sant ci alhamdulillah alladina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wa yuminuuna bihi wa yastaxfiruuna lilladina aamanuu rabbana wasica wasicat wala wasicta kulla shayin raxma wa cilma faxfir lan faxfir lilladina taabuu wattabacuu sabiilaka waqihim cadaaba aljahim borom bi subxanahu wa taala nee na gaa ña nga xam ne ñoo yenu araf ñu ne ñooy malaayika ya ña ngay sàbbaal seen borom ak di ko sant ak di jéggulul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ak di ko ñaan loolaay seen liggéey loolaay seen liggéey moo tax borom bi subxanahu wa taala ci suratul xaafir muy wax naan. takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihinna wal yu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yastaxfiruuna liman fi l ardi alaa inna allaha huwa alxafuru rahim waaye asamaan eh, ak la mu ëmb malaayika yi ña ngay sàbbaal borom bi subhaanahu wa ak di ko sant ak di jéggulul ñi nga xam ne ñoo ci suuf kon leelu loola seenub liggéey la kon yow it ca kenn man wax naa la léegi ne ñi nga xam ne dañoo gëm borom bi subhaanahu wa taala bu ñu tàbbee aljanna yàlla nañ ca bokk texe euh, seen sikar seeni wax seenu cant lépp day dellu ci alhamdulillahi rabbil alamin daawaahum fiha subhaanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaamun wa axiru daawaahum an alhamdulillahi rabbil alamin seenu ñaan mujjantalug seenu woote mooy alhamdulillahi rabbil moo tax suñ borom subhanahu wa taala ca suratu Fatir mu indiwaat fa baat bi di nettali euh, aw nit waaye bañ muccee ca la leen borom bi tegoon ñu ne alhamdulillahi alladi adhaba anna alxazana inna rabbana la xafurun shakur waaw inna rabbana la xafurun shakur sant borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu tàqale njàqare waaye suñ borom de ab baalekat la waaye kuñ war a sant la wa qaalu alhamdulillahi alladi sadaqanaa wacda wa awrasana al arda natabawwau min aljannati xaytu nashaau fa nicma ajru alaamilin ña dugg aljanna it loolu la wax ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ni lam ñu digoon dëgg la te def na ko moo digoon ca suñ koor ga pay ga aljanna moo ñu digoon ci suñ naafile ya pay ga moo ñu digoon ci suñ def yu baax ga pay ga ajjana tey dajana ñoo moom kon aljannaa ngi nii alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi sant borom bi subhaanahu wa taala ci teraanga yi yàlla defal nit la bokk bokk na ci sant ko ci xéewal gim def te mooy xéewalu gindi la ci lislaam te loolu mooy xéewal yi gën a màgg da caa bokk nicmatul islaam xéewaluk doon taalibe bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bokk ci xéewal yooyu xéewalu njub xéewalu gindeku tegu ci ak njub fil axira yàlla nañ ko yàlla defal alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah loolu la ñi gindeeku di ñaan ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa moom mi ñu dimbali bañ xam fi ñu teg suñ tànk ndax bu ñu gindiwul woon taalal ñu làmp bi kon day danañ bokk ci ñi nga xam ne danañ sànku xéewalu gindeeku googu nga xam ne nehmatul hidaaya la ila siraatil mustaqim xéewal gënu koo màgg xéewal gënu koo màgg ndax àdduna lu fi nit am bañ koy tudde xéewal su fekkee du xéewal gu ko dimbali ci mu teg tànkam ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam teg ko ci lislaam ba ëllëg mu mujj aljanna ca wàccuwaay bu rëy ba loola day nekk xéewal goo xam ne xéewalu cànkute rek la wala loo xam ne da koy yóbbu ca safaan bala moo tax laa uxsi shanaan alayka anta kama asnayta ala nafsika loolu la ko jàmb di wax yàlla mënuñoo pek niñ lay kañe ak niñ lay bàkke ni nga xamante ni nii noonu nga ko defale sa bopp noonu nga ko defale sa bopp xéewal yi ñu jox mënuñ laa cant cant cant gu ko fawxa waaye bàyyi giñ la war a bàyyi xel nag ci alhamdulillah loolu moom yitte la war a doon ci ñun ñëpp mbokk yi maa ngi jéggulu ci qualité waxtaan wi ak bruit bi ci suuf ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu ko jéggal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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu